Malika dëkk boo xam ne fii la sën bi ëpp dayoo ci Sénégal la nekk ñu fi dajale bépp mbalit bu ñuy tonni biir Ndakaaru moo ne li wër mbëbës ay ruq yu am solo ci nit yi mën a neexale seen xol lii de garab yi affaire eh, gàncax bi dafa naat te dafa baax ci xol su koy xool muy day baax si si si daal. waaw moom ne ma ñëw fii xool xool day baax si man. fii mooy toolu sëriñ Darou seen ñu gën koo miin ci baay sëriñ fii tool la dañu fi nekk di fi daan suñu doole. moom Baye Serigne chauffeur la woon waaye ba mu demee ba ci biir xam na ni mën naa gis boppam ci mbay mi. yàgg nañ fi lool. parce que man Malika laa juddoo. Malika laa juddoo ba tool nii ma tool sama papa fi la nekkoon ñu ko wax góor gi Idda Seen da doon béy ko ko xam ci mbéy nga ko xam ci laa yaru euh, bi ma demee ba nga xamante ni si euh, dem naa ba nga xam ni xam nga bu dee affaire u xele da ngay dem ba mbay mi du la neex euh, mais ñu la ci orienté li ci wax mais du la neex danga nga naan man dama bëgg a dawal yi wala damaa bëgg a defi lii wala damaa bëgg a jàngi métier wala yooyu man nag bi ma waree jàngi métier jàngi naa métier chauffeur la yàgg naa daw ci àll bi. dama doon def dakaar Dakar Ziguinchor eh, dama doon def dakaar Dakar Ziguinchor ah def naa Dakar Kaolack def naa ci àll bi yëpp partout daw naa ci àll bi yëpp daal fu ne daw naa fa mais dama dem dem ba yàgg ma retourné waat dellu si waat toogaat bàyyi waat lëfin bi. xanaa doxul woon. ngi nii da da doon dox mu ngi nii renouvelé naa ko sax. mu nekk liggéey bu la mën a jural koom bu yaatu. na am na mais liggéeyu tool bi def ko ëpp xaalis ba noppi gën koo noppale. te liggéeyu chauffeur responsabilité la boo xamante ni si tant que néew ci ba génn ci mënuloo ko xam parce que boo déparé Dakar war a jëm Ziguinchor yëpp ay trente personnes yëpp yow yaa ko yaa ko responsable loolu lépp sa loxo la nekk nga départ dem fii ba Ziguinchor dem foofu retourné waat ñëwaat léegi nag comme ni nga ma fekk nii dag maa fekk ma toog ci sama mbaar toog jàpp sama jàmbur pourtant fekk na li may tëdd nii yëpp liggéey baa ngi dox li ñuy wax tëdd ba noppi muy dox. muy mun naa ni ñun lii ñu jàpp nii eh, yàlla na gën a continuer daal waaye wax dëgg yàlla daal ñu ngi ciy sant yàlla bu baax daal. mbay dafa nekk loo xam ne méttiwul te dafa dafa simple aussi dafa dafa baax ci yaram parce que yaa ngi yëngatu yaa ngi ñàq yaa ngi lii. bari na ku nekk ci tool yi nii am na ay feebar yu bari lu mel ni ay xorom yi daanaka du la defee ndax saa yooyu la fi ne sa ginnaaw gi mu ngi xorom mu ngi xorom. day da ngay gis koo xam ne bu doon xale yu góor ñoo fi ne nii di liggéey ne ci naaj bi da ngay gis seen selitement yi buñ ko summee day weex tàll ak xorom mu wóor la ni lii xorom ne ci nit ki la nekkoon kon loolu lu am importance la suukar si xëy na doo ko gis mais même suukar it noonu la koy génne mais mbay li ci nekk lépp luñ suñu waajur yi doon diggal lépp gis nañ ko dafa amoon benn paa bu dëkkoon Medina ma di ko dawalal bu ñuy wax góor gi daaw da jaxate mu ni ma sëriñ ma ne ah mu ni ma mbay mi doo ko bàyyi pour li nga may di ko ma ne ah mun ma dee ko boole ak di bay ku bëggoon bay la nag fu ne bay na fa waaye la ma doon wax lépp lépp maa ngi koy soog a gis pour man sax li ma tardé mënu ko xam bi parce que bi ma toll sama digg doole bu mën a maa liggéey trop damaa dem ba mënatumaa liggéey nag soo ko xam sax li ci nekk lépp. tool bi nag bari na variété ndax lépp luy dem ci cin daanaka dañ ko fi bay. tool moom am na ay garab garab yi moom chapeauté yi ak papaye moo fi nekk ak corossol. comme limon ak euh, ay quelques mentri mentri sax amagul ay doom loolu rek moo fi nekk comme garab ak euh, xëy na saab-saab yi ak yi rek li ñuy wax euh, nebedaay yi yooyu rek moo fi nekk comme garab ak koko yi man salaat laay bay pataas laay bay pooro kanja tamaate yooyu mooy sama mbay mais bu dee ay pomme de terre yooyu euh, du ñu koy bay ñaare parce que bu échecgee rek li muy li muy indi ci pertement day bari parce que saaku yi dafa seer même soble doom ngay gis nii gisoo ko fi ay oignon yooyu rek la ñuy bay mais boo dee ci zone ñaay bi nag boo demee ay côté Mboro côté foofu ñoom dañuy bay pomme de terre lu dañuy bay même soble doom bi dañ koy bay lu bari. ñun nag fii am nañ fi kànja am nañ fi tamaate am nañ fi betterave yooyu yëpp dañ koy bay en tout cas ay betterave salade patas yooyu moo gën a nekk suñu mbay mais bu amee ku ko dégg defee ne pataas bi pour doom la du pataas bi du pour doom pataas bi pour xob yi la ñuy jaay eh, pour fute yi ñoom ñi di ko def ay mboroxi loolu la mais du doomu pataas du bay dina am doom nag mais bu dee fekk ñu dem ba war koo daaj ji dindi rek eh, gas doom yi génne mais day yàgg nag day yàgg parce que li ñuy am ci xob bi mënuñu ko am ci doom bi xob bi moo ëpp rendement doom bi ci ñoom. am tool nag jafe na lool ci diiwaan yi ndax nag. bi dafa gën a yaatu fi ne nii am sax tool bu toll nii jafe na waaye ngi jàpp ba tey. wax dëgg yàlla tool la boo xamante ni si eh, comme tool dafa jafe léegi ci Malika bu njëkk tool yomboon na trop léegi tool yombul ndax dëkkuwaay yi ni mu wëree tool yi eh, presque sax pour nga gis fi tool bu toll nii bariwul eh, tool yi nag léegi dafa génn ci àll bi. boo bëggee bay il faut nga dem ci àll bi pour nga dem bay ñun nag fii lañu nekk di fi yëngu di fi daan suñu doole. yaa ngi may wax ni euh, maanaam yow gis nga ne euh, mbay mi ngay def nii moo gën a noppale waaye moo ëpp euh, xaalis. Mhm. donc xale yi nga xam ne ñoo ngi wuti ci gaal yi ñoo ngi dugg ci lu ne pour mën a am dara xanaa ñoom yëguñu lii wala yéen mag ñi da ngeen koy nëbbu. non ñun nëbbuñu ko ñun bu ñu sañoon xale yi ñëw fii parce que xale yi nekk fii di ma di jàpp ñii fii nekk ci tool yi di liggéey fii. ñu ngi jóge ba Medina gonas gële ca côté ci ginnaaw Tamba ñëw fii di daan seen doole kon ñii ñëw gënoon jige mais xëy na dañ ci am kumpa tuuti mais culture maraîchère yi bu fekkente ni ci yow dugg nga ci dëgg-dëgg te bàyyi te te ñime ko nga doon xele nga xam ne am nga doole pour liggéey billahi wallahi azim boo ci liggéeyee deux ans léegi nga am loo xam ne dañ naan kii fu mu jëlee lii te surtout nag. ci àll bi nga xam ne am na espace maraw ma espace. Mhm. mais ci àll bi fi mu ne man sama benn xarit rek laay ko waxtaanal keroog ma ni ko man su doon léegi sama sama yaram ma may na ma ko. billaahi du ma bay sax ma Malika damay génn dem ci àll bi dem bay parce que gis naa li ñuy bay gis tey luy yomb la loo xamante ne si ñoom ay panneaux solaires yi ñuy yor rek installé commencé liggéey. gas seen mini forage yi daal di commencé daal di liggéey mais bu ñu liggéeyee foofu ku boo boo gisee ab xale bu fa liggéeyee deux man sama doom yor na mini yor na tata daa bàyyi tata bi dem ci tool yi dem bay waaye am na ay xale yu fi jaaroon te fi mu ne des nañ ci géej ndax am na ñaari xale yoo xam ni fii la ñu newoon ci tool bi di daan seen doole waaye jël nañu gaal yi des fa. gaal ñu bëri ñu ngi ci perte seeni doom ñu bëri ñu ngi ci perte seeni ra sët ñu ngi ci ñàkk seeni rakk gaal. fi may wax ak yow nii am na koo xam ne nii ci tool bii la nekkoon dañoo woo fii téléphone yàlla xam na ko ni ñu dafa dafa gaal gi ñu duggoon dafa diig ci géej turam laa fàtte mais kon mu wax la boori ak Kolda la ñaar lañ ñaar lañ ñu ngi nekkoon fii mais dañoo jël gaal dem ba xamu Maroc wala gaal gi kiiwee fa dafa këpp daal ba yàlla dogal na ci la seen bakkan des ñoom ñëpp kon nag gaal man du ma ko digal kenn du ko conseiller kenn pour mu di ko jël. man damaa luyee fii sax damay luyee fii damay fay weer bu dee cinquante mille moom laay fay fii ñi ko moom ñu ko bitim réew. ñu fi mais li ma la mën a wax te di ko digal xele jeunesse yi nga xam ne ñoo ne Sénégal nañu bàyyi li ñuy def fii njaay yi ngay gis ak yëpp ñuy yor ambulant di jaay fii genn wàll gi li ci ëpp nga xam ni amul magasin amul dara billaahi dem ci àll bi ko ëpp xaalis téeméeri junni yoon ku ci dem ci àll bi boo bayee deux ans lii ma wax ni di nga ko xam. mais am nañu est-ce ñoo am nañu jàppale bi parce que souvent dañu naan amuñu jàppale mbay mi. non dañoo xamul rek matériel dafa soxla surtout boo yoree nag kii yu mag ah tool yu mag yooyu oto ay demee xam nga man loolu daloon na ma man eh, am na jamono ñu yore benn boulangerie bu mag bu ñuy wax boulangerie jàmmalaay dama doon dem ba Lagos di livrer ji mais bi may dem Lagos di fi livrer ji dama faa gis ay tool yoo xamante ne si. tool yi damaa wóor ni ñii ko yor dañoo mënul liggéey mais lu ne mën na fi génn may def contact def contact ba ñu ne ma tool yaa ngi nii boo bëggee bay nga ñëw bay ma daal di attaqué jël fii ñu ma dem liggéeyal liggéeyal liggéey ma daal di planté def betterave def poor def supame mais supame ma fa njëkk def rek ñu ma ko jaay 500000 laa leen ko jaayee loo xamante ne si motul trois mois. yow déedéet dama koy togg. ah da ngay def restaurant. jërëjëf. xanaa fii la gën a yombe. ma ne ko neel waaw rek. Ndiaye moo ñuy defar xiiwal bi saraate bi yëpp moo ñu ciy defar. 5 kilos la gis nga. moo ñu ciy defar xiiwal ci salade si. waaw. fii laa ko wote. bi hmm? pataas la. waaw bi pataas la waaye pataas la. séeréer bi rek ñu fenn de. bu ndaw la. foire bi dama dama dama dama dama buddee buddi ba xaw ma nu may def dama fabu fabu ba xaw ma betterave bi aussi xale yi sax dañu ñëw ma leen may betterave ku ñëw rek boo soxlaa rek may la ngay xale yi dañ ko yëy parce que booba lagros xamuñu ko xamuñu betterave parce que betterave betterave dafa saf suukar mën nañ ko lekk directement mën nañ ko lekk directement noonu waaw léegi nag xale pël yi ne woon foofu xamuñu ko mhm. mais su ma ñëwee su ma droité oto bi rek ñu daal di ñëw bi may commencé fii bay sax boobu bu fekkoon amoon naa camionnette kon du ma bay fii kon booba Lac Rose laa doon bayee ji parce que booba ña fa nekk dalal nañ ma dalal goo xam xam nañ ni ni may bay maa ngi leen di jàngalaale sax parce que am na lu may bay noo xam bi ma ñëwee bi supam bi ma jëkk a defar bi ma ni ma koy defaree gis boobu façon boobu façon liggéey. waaw parce que lii boo ko doon bay gerte tey maanaam ñun dañuy bay sal benn plan salade mun koy jaay quinze mille francs comme plan yi ngay gis nii plan salade yi ngay gis nii. ah amul benn bu ci mooy neuf mille francs léegi bu neuf mille francs boo ko multiplier par dix lii huit plan la boo ko boo ko xam nga espace bu gàtt la diggante bu diggante bu rek la lii huit plan la loolu boo ko boo ko multiplier par neuf boo ko multiplier par di huit plan nga multiplier ko par neuf neuf neuf mille loolu xaalis la. tool bi nag ñu bare gis ci seen bopp ak njëriñam ci diiwaan gi ndax nag yenn jigéen ñi sax dañ fi ñëw di jënd ak jaayaat waaye tamit. di ko jëfandikoo lu mel ni seen ay restaurant lu mel ni ndaw si. si laay ci ak pangom ci ñoom lay nduggee jënd salade tomate ay affaire yooyu ay betterave ak yooyu. waaw damaa yore restaurant. dañ koy witt rek. jaay waaw fere na moom dañ koy witt rek jaay ma boo ñëwee sax yaay wittal sa bopp. waaw lu am solo la jege na ma soriwu ma maa ngi dëkk fii tout pere ci wetu dépôt bi dépôt feer bi waaw. lan xalaat ci tool bi. Ah, tool bi xanaa di ñaan rek mu yàgg feek ñun ñun bëgguñu moom mu jóge fi dañoo bëgg rek mu yàgg feek ñun ndax ñun jigéen ñi ci la ñuy yëngu boo jënd see salaat def ci sa paan dem jaayi booy restaurant tamit ñëw jënd fi say tamaate ak say yooyu. mu nekk liggéey boo xam ne bu sañoon ndaw ñu bare dañ koy gëstu ndaxte bëri na luñ ci mën a jàng waaye bëri na luñ ci mën a jëriñoo mu yokk bu baax sa dundin bu gën a naat. te liggéey. njàng la. gis nga xele yi nga xam dañuy ñëw ab xale bu ndaw sax day ñëw fii fekk la nga liggéey fii 30 ans 40 ans mu ñëw wan la benn affaire ni nga ko doon liggéey nga bàyyi ko dem fekk ni muy liggéeyee comme jàng ci boppam moo dul wees te xam-xam du doy man soo ñëwee fii du ma nangoo xam dara daanaka su ma la wonee nga won ma ma xool li nga ma won bu gënee li ma doon def ma bàyyi ko bokk nañu fi benn maison de la femme bi am na benn dafin association bu fi nekk man bokk naa ci mais. Euh, man naa ni euh, technicien ba fa nekk day jóge Thiès di ñëw fii di jàngal ni ñi mbay mais léeg-léeg ma wax ko loo xam ni dina ma fekk si parce que Thiès ak fii suuf si bokkuñ léeg-léeg ma ne ko lii mu ne ah ma ne ko li nga wax ci ndox buñ ko ci defee mu yàqu il faut ñu yokk ko parce que fii ak Thiès bokkul mais bu demee ba ci biir dina ma fekk si xam ne li ma ko waxoon dëgg la. kon jàng moomu ngay wax noonu dafa am solo Euh, est-ce jàppoo ne tey jii bu fekkoon ne teel nañu dugal njàngum suuf si mbay meeg yooyu ci di ko sërëxal ndànk ndànk rek ci école bi. waaw mën na permettre xale yi gën a bëgg. Ah, xemmem voilà xemmem suuf xemmem mbay. waaw ah nga xam ne ku ci sa jàng demul tamit euh, nga jàdd rek. waaw parce que loolu nit lu mu xamul xamu ko rek comme li ma la wax. fi mu ne nii am na ñoo xam ne xëy na bëgg na ñoo bay mais xamuñu yoon bi mais loolu nag. dañ ko war a dugal ci ci ci média yi nga xamante ne si télévision yi da ciy génn di génn ci rajo yi ñu di ko wax ñu ni joxe benn lifin boo xam ne ku bëgg a bay na nga ñëw dinañ la orienté boo woon la ni ngay bay pour nga mun a am dara mais fi mu ne nii am na ñoo xam ne ñu ngi biir Dakar gi bëgg nañoo bay mais mënuñoo bay amoon na benn xele bu dëkkoon Pikine euh, xamut fàtte naa turam bi may bi may bi may bi may livré mburu euh, ñàgg Tivaouane Peulh la ne moom bu mu musaa ñëw Tivaouane Peulh trois heures du matin su ma droité oto mburu mu ñëw di jënd mburu mun ba man man étudiant la mais dama am fii tool damay bay mais kooku mu ngay sonn gis nga nit il faut ñu jóg dakaar dem ci àll bi gouvernement biit il faut mu dimbali nit ñi pour ndox ndox rek moo manqué ci àll bi xëy na nit ñu bari ba ñu ñoo bay ñun suñu dëkku cosaan bu amoon ay ndox yooyu kon mën naa ni fii soxla moo fi bayee mën naa dem bayi foofu te bu ma demee dina am loo xam ne dina daan te xelal am na ay xel yu fa nekk nag mën nañoo bay parce que dañuy nekk man fii lu bari kon mbay moom dafa amul lu ko mun a remplacer lu dul mbay mbay rek ko mun a remplacer mais am na ñoo xam ne bëgg nañoo bay mais xamuñu yoon wi te yàlla defu leen nag ñu doxal ñu ñëw fii ci ñoon parce que duñu ay xele yu wër yooyu dañu xëy di wër di jaay rek mais ku yor marchandise am mu ñëw di di la jaay fi dara ay yor ay seletement wala mu yor ay ay kaas ay lii yooyu yëpp di ko wër di ko jaay fekk na billaay fekk na benn e-, espace bu tuuti. lay jaay rek am lu lu triple li mu yor mais du ko mun a xam defe na ni li mu nekk mooy dëgg te fekk jaay mënis koo bañ force mu am ci réew mais mbay nag moom des koo mënta daa mënta ñàkk force mu am. ndax nit moom foofu waaw voilà <laughs> voilà dëgg la ma laaj itamit beneen. Ah. Euh, mooy semence yi fi nga koy amee jiwu yi. semence yi non non semence yi jafewul mais. maanaam is nga euh, Sénégal euh, maanaam nit ñi nit ñi nit ñi xëy na ñun dañoo war a am aw yoon wu ñu jaar tiñ ci ñu nit jaaruñu ci yoon boobu parce que yoon bi euh, Abdoulaye mos na ko wax nee na ay nit ba lañ leen mën a dimbali dañoo dajaloo def benn GIE wala ñu def association wala loolu mais mëneesul par kenn nit nga dem di ko dimbali di ko dimbali te fii léegi mbay mi moo bareetul su bari woon ba nëgë ni mun nañu def association fii am nañu coopérative fii am nañu président bu fi nekk El maali Malick moo fi nekk comme président baykat yi moo ñu jiite mais euh, loolu moo manqué aussi boo gisee nag mu manqué espace bi fi am moo jaaralu nit ñi loolu mais ñun ñi ñëpp fi mu ne kenn ku nekk li may digal xale yi kenn ku nekk na dellu ci dëkku cosaanam mu dem jéem a lijjanti ñu nu ñu mën a def. boo ñu defal leen foo ñu am ndox ñu dem bay mbay moom buñ ko jàppee te bàyyi bàyyiwuñ ko continuer ko daa ëpp xaalis sax mbayu gerte yii ngay gis nii mbay culture bii ñu def nii daa waaw maraîchage bi daa ëpp xaalis mbayu gerte waaw maa ngi ciy gis sama bopp maa ngi sant yàlla rek sant yàlla li ma foo nekk di di daan sa doole di jot sa wërsëg di faj sa soxla xëy na amoo ñëpp di wax mais yaa ngi faj sa soxla sant yàlla. avant loolu avant loolu yi may ñëw fii. ci. tool bi. waaw avant cinq may ñëw ci tool bi tamit ci tool laa nekkoon. waaw ci tool laa nekkoon. kon yow daal bay nga xam. bay laa xam ci laa yaru xaw ma leneen moom rek laay mooy sama liggéey. mais bu doon gerte mënu ci génn mais nag fa ñuy béyee gerte dañuy béy espace bu yaatu boo xam ni mat na li fukk bu ñu bayee gerte gi ba pare aussi pertement bi mooy bu ñu béyee gerte gi ba pare ba béy dugub ji ba pare ba fatu ba pare léegi déwénati. saisonnier comme ni ñu wax. voilà léegi léegi nag lu koy indi loolu la dëkk ma amul ndox moo indi loolu su fekkoon dëkk ba amoon na ndox suñu paree ci gerte bi rek dañuy dal di dugg ci leneen waaw xam nga fi mu am na ñoo xam ne ñu ngi bay gerte. fim mu ne nii am na ñuy béy gerte gerte bu tooy mais dañ koy arrosé mais bu bëlee dee jar kilo téeméer bii mille francs lay jar parce que bariwul gerte bu tooy yombul heure bii. sama question bu mujj. Ah. Euh, mooy fi parce que ah. souvent même am na benn euh, jamono. ñuy doon béy pomme de terre ak soble dañu mujjee. Ah. di ko gas di ko suul parce que amuñu fuñ ko denc. donc problème wu denc boobu. ñu bëri tamit dañ koy jàmbat ci euh, liy gàllankoor en tout cas li nga xam ne moom mooy suñu insuffisance ak euh, suñu suffisance autosuffisance alimentaire. waa xam nga loolu moom lu yomb bóor la pour fu ñu denc soble rek fu la fu ñu denc pompiteer magasin yooyu lu yomb bóor la yomb na ko moom ñun nag yombuñu parce que mënuñu ko am. mais gis nga loolu bu fekkoon dafa am ci àll bi nga xamante ne si ay gaañjool ak foofu dañ leen koo defal soble bi du yàq benn yoon. mais nag sénégalais yi dafa am leneen lu ci am moo xam ni du arranger du arranger population bi. yow boo bu fekkee ku ñoral su rek nga denc ko ku ñoral nga denc ko soo waree jënd kilo soble 300 mais léegi yow di nga dem ba jënd ko 1000 francs bu dee biir nawet buñ ko denc ba biir nawet dinañ la ko ay mille francs mais loolu arrangé wul population bi ci boobu côté it. xëy na bu ñu amoon magasin it dañu seet heure boo xam ne bu heure bu jotee ñu génn ko bu naaree manqué bañ di ko jëli France. parce que soble bi moom il faut mu jóge France ñëw fii ndax il faut mu manqué pomme de terre bi il faut mu jógee France ñëw fii ndax li fi nekk mu doyul. te ba noppi nag béykat yaa ngi jàmbat ni li ñu yor daa ëpp mun ñu koo jaay xoolal ñaari affaire yooyu ñu ngi jëli pomme de terre France di indi di jëli Hollande di yooyu yëpp ñu di ko jëli di indi ndax mu manqué. xaw a manqué tuuti moo tax ñu di ko indi mais bu manqué wul doo ko mun a que soo ko indee doo yow boo ko jëlee France indi ko fii ñëw fekk ñu jaay ci marché bi kilo 200 francs noo koy jaayee doo ko mun a jaay mais nag am na loo xam ni arrangé wul population bu seeree seer ba mu ëpp rek arrangé wul peuple dafa war a yem dañ ko war a réglementé mu yem ñu xam ni kilo bi wurul passé nangam waaw mais bu fekkee nag lu neex waaye mu jaayee day mujj sama menn man mii. ma ma bëgg lor nag waa dëkk bi yëpp waa Malika gépp ma bëgg leen a lor yor la affaire boo xam ne dama koy bës rek seere ko rek pour sama bopp rek seet xool sama intérêt bopp rek du noonu. bu sañoon changement de régime bu bees bi am Sénégal dinañu gën a gëstu waaye tamit dooleel mbay ndax mën naa yor réew mi yëpp. maa ngi ñaax xele yi daal ah ñu gën a góorlu ci wàllu mbay mi ñu jëm ci dugal seen loxo te bàyyi eh, gaal yi ñuy dugg di dem ak ñëw loolu vraiment. nekkul la xëy na ñenn ñaa ngi ci man mi am naa xel yoo xam ne dugg nañ ci gaal dem xëy na yàlla dimbali na ma nag bu aw ma guma ko xam daal dugg ci gaal des ci géej gi mais nag xale yi dañoo toll foo xam ni euh, maanaam lu ñu dem ba li ñuy wax Barça ba Barça force mu am mu lu ci am nag baax na ci ñoom ñoom ñaar yooyu lañ fab indi bu ma eggee barsa baax na bu ma desee ci géej gi def muy Barça li feen waaw parce que foofu nit wóor faa egg sax waaw xëy na nag euh, gouvernement bi régime bu bees bii ñun ñëpp dañ ci am yaakaar parce que ñoom duñ tudd tudd mbay kon yàlla na leen yàlla doole dimbali doole ñoo dimbali ba ñoom ñu dugal seen loxo ci mbay mi bu baax a baax a baax bu ñu ko defee xele yi semence lu koy wàññi mbay mii moo ko gën a mën a wàññi parce que boo yoree sa tool di liggéey chemeto weer bu dee yaa ngi am xaalis wala avant weer sax nga am xaalis kon loolu gouvernement bu bëggee wàññi chômage booy boo rek mu wut ndox yóbbu ko ci àll bi fu ne am ndox nit ñi mën a liggéey xale yu toog jàpp seen njàmbur ne seen dëkk parce que liggéey léegi xëy yaa ngi xëy sept heures onze nga wàcc sa liggéeyu bopp la boo amee dëj di ci mën a dem soo amee ngénte di nga mën a dem amul dara looy gàllankoor mais liggéeyu tubaab nag laajul loolu. Ah, déedéet déedéet ma la woon laaj. waaw ñaata xale ñu lay jàppale. ñaata nga am parce que am na ñu lay jàppale. waaw fii de yaakaar naa hmm. fii daal six personnes ñoo fi nekk ak ak samay xele xele yi samedi dimanche la ñuy ñëw ak mercredi dañ ci jàpp bu baax nag mais ngoon gi moom il faut mu am ku ñëw ci xele yi dina am euh, parce que liggéey bi ñuy liggéey ak man li ma doon liggéey ñoom bokkul moom liggéey bu yomb la ñuy liggéey man bi may liggéey ak sama papa arrosoir yi laay yor di tànq di sotti di tànq di sotti léegi ñoom yàlla dimbali leen ba man moteur laa yor yor samay raccord dañuy téye raccord ñu taal moteur bi ñu nii nii nii di arrosé kon loolu diisul ci ñoom man li bi may toll ci sama digg doole bu ma amoon lii kon li may liggéey nii doon naa liggéey am fukk doon naa ko liggéey mais lu ma mosale fi ci seen laay dugg ma duy dem sotti ci plan yi ñoom nag loolu yàlla def jaaruñu ci kon war nañoo gën a góorgóorlu bu baax a baax mais maa ngi leen dugal ci biir tool bi moom pour force nga ñëw tool il faut nga ñëw tool di xool ni may def ñëw dàqu din ko fii mu ne même pépinière dañ koy def suñu bëggee def pépinière ay xele yu ndaw waaw kon mun naa ni loolu daal euh, laay dénk euh, sénégalais yëpp parce que sénégalais yi ñu ngi liggéey ñu ngi bay yow mi da nga war a am tool. ah bëgg war a am tool nag danga war a am tool nag da nga war a am tool bu baax. boo amee tool dootoo ko rëccu. man maa la wax lii waaw waaw waaw. léegi daal <laughs> góorgóorlu nit ñëpp lu daal jàpp rek ku ne jàpp bañ a bàyyi. am réew noonu la. waaye nag jàpp gi ñuy jàpp. daanaka suñu bopp la ñuy jàppal di ñu kenn ndax ñun jaayuñu jox président jaayuñu jox ministre lii du du du du ay taxes da ciy génn dara génn ci loo xam day jëm ci buur buñ ko jaayee fii fii lañ koy fii lañ koy bay jaay ko fii toog jàpp suñu njàmbur kon ñun war na nañoo gën a lu baax a baax a baax am na ñoo xam ne tey table dong buñ ko tegee fii balaa ngoon ñun dinañ il faut nga fay cent franc kon ñun war nañu dolliwaat bu baax mais nag ñu ngi ñaaxaat nag Euh, gouvernement bu bees mu di muy jàppali béykat yi bu baax a baax a baax jàppali ñun ñi bu baax te xam ni Malika comme moom sax ñeneen jaar na Malika kon war naa góor war naa jàppale waa Malika ci mbay mi bu baax jaar na fi def arrosé bi mm. moom ci jëm boppam jomaay wax na ko wax nañ ko nee na jaar na fii ci Malika def fii arrosé kon moom war naa xel retourné waat xelam fii nag jàppaat bu baax mais ñun duñu découragé rosé rek lañuy def liggéey jàpp suñu njàmbur jaamu yàlla